asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre ci seen sit internet lutte tv point com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ki ngeen jàkkaarloo nag namoon ngeen ko ci lutte tv gëjoon ngeen ko gis Abdou boo xarañ loo nag Sandaga la nekk nee naa ko nag chaque jour mu ne ma demal nga jëli yaawu jaal ak père may ngoone moom nee na ñaari interview yooyu la soxla moo tax andil naa ko yaawu jaal te bëgg naa nag nga dem seeti ko palaasam Sandaga ndax moom da lay bëggee te dafa bëgg sa interview moo tax ñu ñëw fii fekk la sa biir kër nga nekk ci sànce bare nag yor sa salle de musculation mu mel ni yaaw nag yaaw mii nekk te day naxaate dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi suivre le TV point com ñu waxtaan ak moom lu yaatu ci carrière am waxtaan ak moom tamit ci tooluwaayu dëkk bi yaaw jaal doomu Ablaye Wade maa ngi lay nuyu di la ziar. laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah salaay salaam ba ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxrim ak sa sant suma sëriñ Ablaye Wade sant Ibrahima Sall seeti maam Thierno Birahim Mbacke sant nag le grand musicien Youssou Ndour et barke sëñ Bamba. mais yow ci loo nekk dañ laa gëj gis. ajal micro bi. waaw man de wax dëgg saa maa ngi samay entraînement maa ngi samay entraînement maa ngi jàpp sama ñàmbur maa ngi toog maa ngi récupéré bu baax a baax a baax baax maa ngi sant yàlla bu baax nag di sant waa Sénégal yëpp barke sëñ Bamba. mais raar bi ñu jékki-jékki gis ñu yaaw yaaw komba yu mag yi doon am yëpp yaaw jaar mooy bëre premier combat bi. waaw ñu jékki-jékki gis yaawu raar lan moo tax yaawu raar. dafa nekk ci ay business bu boppam wala hmm. promoteur yi. ñoo tëggatul yaawu jàll waaw man nag maa ngi sant yàlla bu baax ndax maa ngi sant Aline Petit mbay di sant Luc Nicolaï bu baax sant Gaston Meng promoteur yooyu vraiment maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm di sant nag promoteur yi ndaw yi nga xam ne nii bon ñoo ngi tëgg sama làmb Luc Nicolaï nag lii nag occasion la quoi damay ñaan yàlla yal na ko yàlla teggi si naan naan artu bi nga xam ne yàlla ko teg yal na ko yàlla teggi ndaxte vraiment moom mo daanu bi problème bi mu am bi sax man daf maa dépassé ba mënut ma sax demati làmb man ndaxte ku mel ni Luc Nicolaï dafa nekk koo xam ne référence la yàgg dafa tëgg tëgg façon combat bu mag bu ne tëgg na ko fi tëgg na fi comme façon combat bu bu mag bu ne te classe yaawu jaar yi daan ñun toog mu tëgg combat bu mag tey ne neewul yaawu jaar kay kaay bëri si premier combat tey bu dee ba nekk si ay jafe-jafe petit mbay tam nekk ay jafe-jafe damay ñaan yàlla ñaar ñoon yàlla yàlla teggil jafe-jafe gàllankoor yi Gaston Mbengue ne man bëgg naa ko lancé waat ko message pour mu dellu si waat si làmb ji te bu dellu si waat si làmb ji bëgg naa mu taxaw Aline Petit Mbaye mu taxaw lig ni ko laay ndax promoteur yooyu ku ni ñooñu li leen war a si làmb ji ndax tey tey bu demee ba xam yaaw yaawu jaal promoteur yooyu la tey bu doon promoteur yooyu kon kenn du xam yaawu jaal kenn du xam benn mbër kon boog ñooñu noonu na leen war di taxaw erreur mënta ñàkk ndox mënta ñàkk jafe-jafe mënta ñàkk gàllankoor mënta ñàkk mais lig ni ko laayee ay petit mbay yàlla na yàlla teggi na ko yàlla teggi ba si a quelque chose petit tamit moom tamit il a quelque am sant yàlla man daal bu doon sama sago daal yàlla na yàlla teggil jafe-jafe gàllankoor yi quoi man daal loolu laa ñaan yàlla quoi barke sëñ Tuubaa loolu daal bëggoon naa ko daal. loolu am na solo yow am lancé nga message bu am am solo. ku mel ni Petit Mbaye. ak Ligue Nicolas Ligue Nicolas ba si Gaston Mbengue. ñu Ligue Nicolas saison bi da ko naroon a yëngal ren a organiser ay combat yu mag a mag a a mag bi mu taxawalee. combat Modou Lo Ama Baldé. bëggoon na cee teg Boy Niang Balla Gaye 2 bëggoon naa tëgg Reug Reug saison bi ren dafa naroon tëgg ay combat yu bare bare bare boo ko fàttalikoo nii loolu lay wane ni gor nga rek. Mhm. dafa tëgg say combat. lu bari kay. keroog bu may daan yaaw jàll bi Kaolack si ëllëg sa la ma Ablaye jënd kër gi nekk asalem Fass moo tax Luc Nicolaï kooku mënu ma koo fàtte Aliou Petit Mbaye mënu ma koo fàtte Aliou Petit Mbaye loolu mënu ma koo fàtte combat wu Tyson Bombardier moo tëggoon sama combat esat amitié ma daan si waaw ma daan si Bodi FM jël bu rëy boobu Macky Sall mu ngi nekk premier ministre ma xëy ñu woolu ma pale ma ne ah monsieur le ministre mi ne ma audience ak Ablaye laa bëgg mu xëy wax Ablaye ñu xëy ma am fa audience audience boobu noonu Alioune Petit Mbaye tax gannaaw yàlla mu sotti ndax moo ndaxte moo ma tëgg bu ma tëgg woon ko du ma tamit kon tey du ma gisante ak Ablaye Wade moo hmm. ma tëgg ba ma am si ndam moo tax moom tey bu nekk si ay jafe-jafe dama koy ñaan yàlla yàlla ko yàlla teggi yaa ngi dégg li ni ko lay boo gisee man saa su ne man tamit fu ma toll di ko sant ko di ko gërëm hmm. keroog mooy daan yaaw jal bu lax si ëllëg si la ma fayal sama kër gi nekk ko faas kon ñooñu mënu leen kon ñooñu mënu leen fàtte hmm. gasoo meng bëri na combat bu mag mu tëgg Sénégal fii ah tant que bëriwuma dimanche bi ñëw bu sopp rek xanaa kay ma bëri dimanche bi ñëw war a moom war a tëgg dimanche bi ñëw nga xam ne day xar nga xam ne du ma si mën a bëri mais bu nekk dafa am licence combat bu mag bu mu musaan tëgg man man yaaw jaal Gaston Mbengue tëgg na ko hmm. moo tax classe Gaston Mbengue yi ñooñu ak ñun sëñ Mourian ñooñu dañoo war a mën a taxawaat si làmb sëñ Mourian da daan tëgg ay vingt cinq jours voilà sëñ Mourian ñu man tamit maa ngi lancé état na ñëpp dawal coopération ndaxte ñun ay nit Ablaye Wade lañu tey làmb ji am na fu mu doon àgg ñun ñoo ko doon neexal doon def lu nekk di animé ñëpp tëdd suuf mais tey bu ñu am na ñoo xam ne tey dañuy jël seen maay na ñii kat ay nit Ablaye Wade leen boole seen programme ñoom loolu ñoo dem tey ba réew mi demee nii fekk tey da am sa fulla am sa fayda da ngay jàpp sa ñaambur. kon kon kon nekk bi nga nekk ci Ablaye Wade am na lu mu la yàqal ci làmb. non non waaw waaw non yàqal ma. instant bii nii yàq yàqal ma dara ndaxte man moom ku bañ ku ma bañ a defar teraanga ñu xam ni yaaw mi nit Ablaye Wade la xam ne doo ma yaay demal sa compréhension boobu xam ma nit Ablaye Wade la xam la nga woo ma sa journée ma ñëw bëri si wala mu ñu def animation ñoo jàpp sama ñaam waaye bu ne yaaw mi nit Ablaye Wade du ma ko du ma téye si ay buntu ndax maa ngi moom démbaloo si jamono Ablaye Wade mu gars yi ne bu ñu yeewoon wala ñu muusoon dinañ xam fu ñuy teg seen tànk xam la kon boog man làmb ji dina métti de làmb ji nii nii nii nii nii nii dina métti trop trop trop trop trop boo si amul sa boo si amul sa métier caab dina xam ministre de l'emploi Dame Diop vraiment man jàppale na ma tey ba am naa diplôme sérigraphie man kooku dama koy sant bu baax di ko gërëm ndax ñoo bokk dëkk njaareem si waaw am naa si diplôme ñoom Bamba Mbuub ñoom grand Abouli ñoom père Ibrahima Mbaye ñoom père Mbaye Guèye ñoom ñoo ko organisé ba yàlla def loolu loolu réussir tey bëri na ay t-shirt yoo xam ne moo koy defar waaw te am na loo xam ne sant yàlla tey pour tey boo xoolee tey am na sama métier si car rapide yi am na sama transport tey su ma neexoon suba su ma dawal car rapide mbaa taxi mbaa clando métier sérigraphie tey boo amee bouson yooyu dafa war ak yooyu ma ko la ko kon am na loo xam ne sant yàlla tey fekkante amoo métier fu mu toll nii kon fan nga jëm hmm. yaaw jaal dañ ñoo gis mbëri bu ñu daan ñëw ku ci nekk boo ñëw sa photo sëriñ ngay àndi waaw yéegi ni maam alaaji Malick sa waay ñëw nu mu tuddati Tyson Alioune Baye Niass bi Tafa Gueye noonu yow nga ñëw rek indi Ablaye Wade fël foo xamante ne kenn xalaatoo foo woon ay dóor la woon wala lan la woon wala cofeel nga amoon ci Ablaye Wade. bu nekkoon ay dóor kon na dóori réussir na réussir na kon dóori waaye waaye de fu mu toll nii nii nii nii na yéex Ablaye Wade ak ay waa këram ak deretam fu mu ñoom ñooñu yaa na yéex dee rek moom tàggal ak ñoom ñun njaboot bu fi nekkee Ablaye Wade ak waa këram direct fu mu cité fu fépp fépp Ablaye Wade bépp Ablaye Wade nga xam ne nii président Ablaye Wade nga xam ne nii fu mu circulé si ay wala si ay jarabaatam wala si ay doomam wala si ay sër wala si ay maamam ñooñu dee moo ñu tàggale ak Ablaye Wade ak ay waa këram ndaxte ñun mënuñu nga yëkkati defal ñu teraanga xamuñu woon dara te mënu mënuñu bëri ba dee duñu am kër duñu am këru Ndakaaru mënoon naa bëri ba dee du ma fay ko un million mënoon naa bëri ba dee du ma fay ko cinq cent mille yi mat mënoon bëri ba dee du ma fay ko juróom fukki junni yi mat Abdoulaye di yëkkati ay ay sarang ji bari neel am teel kon kooku mënoo koo fay sama appareil moo ko poosé un million ak deux cent mille la ko poosé colonel Dieng bu camp Diallo moo ko poosé Abdoulaye woo ko téléphone wax ak moom nekk yaa nii ak nii yaa naa ba tey lii am am tey nag adduna dox àdduna dox àdduna dox boo mu ñàkk pouvoir ñun ma yaaw bàyyi Abdoulaye Wade <laughs> xajam sax xajam xajam bii di mbaw sax boo ko bëggul wala boo ko nawloo man bëgguma la nawloo ma la xanaa kay nga dawal coopération rek xam nga nit Abdoulaye Wade la foo ma dugal ma dugg fa waaye tant que yaa ngi may xoolee nit Abdoulaye Wade la doo ma dimbale wala doo ma jàppale xam naa doo ma jàppale doo ma dimbale ndax man fu ma moom <laughs> gannaaw yàlla Seydina Ahmad <laughs> kon boog man <laughs> dara dérangé wu ma ñu fi tànn ma tegal fay ko wax dëgg si yàlla ndax le premier janvier 2007 <laughs> du ma ko fàtte ba yaayu mi diini keroog mu ñëwee kër Abdoulaye fekk ma fa nee naa ko monsieur le ministre monsieur le président mi ne ma naa ma ne ko gàcce ngalaam lii bett moon sa diggante ak Abdoulaye Wade yàqkat yi buñ xamoon buñ xamoon lii dina am duñ yàq waaye man xamoon naa wiiri wiiri jaari ndaari sa diggante ak Abdoulaye dina réussir kon moom monsieur le président yàlla na yàlla jàppale man loolu ko wax man. mais mais bi laa wax nan la ñëwee sa xel nan ñëwee sa xel nga ne. waaw photo bi lu mu ñëwee sama xel. tubaabu joor yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana damaa bëri mbapatam dali for Birame Ndiaye ñëw fekk ma fa muy bëre waaw tubaabu jor ne Birame yaaw jaar mii kat bu duggee sa làmb yor na mën a jëlee làmb ji gaynde Birame Ndiaye ne mu yaaw suuf boo xëyee fekk ma sama kër parcelle ma xëy sept heures du mu fekk ma parcelle mu xëy yóbbu ma CNG ba ma jëlee yóbbu ma CNG mu xam ne diggante buun ba parcelle dafa sori mu leeral la te su fekkoon ma doon yeewoo dali far kon mën nekk écrit parcelle mais dafa ma jël teg ma si loxo Pape Diop euh, dafa jël sama loxo te ko si loxo euh, Paara Diop ne ko yaawoo jàll comme te moo ngi buun te Pikine tout jege na la te naa ko sa loxo ba tey loolu moom moo tax a yóbbu Pikine mbooloo te sama zone bi fii fii buunu ma ma nekk am na écrit fi nekk te écrit double bi nii ñu ko sant man mi si laa bokk xam laa si bokkee ndax dañ mën a ñëw si écrit ma ne man mun maa si écrit bi Pikine mbooloo xas naa faa def marque mën naa di entraînement foofu ñaari fan entraînement fii ñaari fan bëgg ba fii am ci bës ba pare mu retiré wu ba mu fa gëjee ba léegi kenn xamul ñaata at la ikiri buun ikiri euh, alaaji Mansour Mbaye si ko sant si laa bokk ndax tey ma ñëw di entraînement si pour ñu xam ne fii am na ikiri xam la bu demee ba gars yi xam ikiri ba keroog laa fa gëj yaa ngi kon am na loo xam ne sant yàlla la ikiri per Mbaye Gueye suma exemple su guddee dem Pikine mbooloo ikiri per Mbaye Gueye laa dem entraînement ji kon ma aw ma sa interdit kon su ma neexoon ma dem mais dew ma fa Pikine mbooloo dama fa xas def marque lu ma defee marque sama diggante Ablaye Wade noonu laa defee marque si Pikine mbooloo Alaaji Mansour Mbaye ngi nii koo wax mi ne dafa góore si Abdou Diouf koo wax mi ne Alaaji Mansour dafa góore xam loolu woy la waxuñu am alal de waxuñu dafa am alal wala dafa góore woy la te yàlla yéex sappam lañ de desen desen yàlla yéex ñu ne desen góore ngoog man damay ñeen yàlla nag référence ba mu am damay ñaan yàlla mu réussir sama diggante man ak Ablaye Wade man loolu mooy sama woy ku ne yaa wala ku ma jox cër ne lay Wade sant yàlla moo ma gën a yaa am alal la ngi nii jàmbur na <laughs> am na xam xel koy motali man loolu laay ñaan yàlla seede yàlla loolu laay ñaan yow way boobu pa man Mansour mbay am si Abdou Diouf ba ñëpp di ko wax man damay ñaan yàlla am way boobu xool sëñ Mourou ñaa sant yàlla xam nga boo goree ku la gis la jox cër ku la ku la gis da lay respecté mais boo goreetu foo romb ñu ne la xoolal ma safaan bi wala misi ba yàlla ñu ci yàlla musal si man na sànni ma kenn xeer waxuma kenn man sama bisee si bopp laa wax man yaaw jaal <laughs> man daal nit Ablaye Wade la ak waa këram ñi fi nekk nag yàlla lañ fi teg ba heureusement sama président bi am na ak moom jàmm ak salaam ndaxte avant muy jubóog Ablaye Wade yéenu ma ko woon dara lu jàmm ak salaam yaa ma ne kon moom tey bu dee ba jàppante ak Ablaye Wade ba jàmm am kon moom fu mu teg tànkam su ma ko waxee wala waa mu wax ma ko dama dem defi sama animation def sama spectacle ok waaye bàyyil Ablaye Wade amul de Ablaye kër gii la la jëndal wala fan la la jëndal kër non kër gi fii sama alalu baay la kii sama kër baay la buun fii ada hmm. yaawu jar bii sama kër baay la hmm. Ablaye fu ma jëndal Fass la nekk hmm. boo dee ba aslem Fass boo nee kër yaaw ñu ne moo ngi nii bu ko Ablaye di may ñu ne moo ngi nii kon xam na am loo xam ne sant yàlla la daa ma ne sant yàlla la quoi ah. sant yàlla la quoi rak rak nit ki di ngay gëm sa bopp boo gëmee sa bopp rek yàlla sutural la bul soxor bul iñaan xool lu mu wax bojo bojo bojo bojo boo ko déglu loo mel lu ne rek bu nekkee lu bon na di nga xam ne moom nga hmm. waaye boo ko melul ah, ah boo déggee bojo bojo sa xol di si sedd guy salle salle de musculation bi ñu la fekk nii nag waaw salle de musculation sama salle sama salle de la sama kër la waaw sa samay matériel la samay bagage la sama koñ fii buun fii nii booy ikiri waa kër ikiri alaaji Mansour Mbaye ak waa kër ikiri duubal esi yaa ngi ak booy nekk si comico yi jàpp mbedd face jàpp yëmbal booy yu bëri fii ñu entraînement yi sama saa musculation bi waaw mais sant yàlla quoi rek. kon kay yaaw yàlla lii moo tax amatul jotu làmb day business la. waaw non non business. nga man ba may business. booba maa ngi wuyoo mbëru Ablaye Wade laay commencé business. dama ñëw. business dëgg bu ñu koy wax moo tax Tyson kooku référence la xoolal yaxee jub yi ki nii dafa jàpp ñàmburam bëri na si làmb ji ba jeexal mu génne si njëkk teraanga mu neex lool Tyson mu neex lool mais yéen mbër yi bëgg a xajamal bu ñu xajamal Alioune Sarr taal bu yàlla taal la sànni ma te gën fay ko xam nga doo mën sànni ma te gën fay ko nit waroo soxor waroo iñaan. kon yow Alioune Sarr nga àndal. déggoo ma de man ku liggéey laa àndal. ku liggéeyul ànduma ak moom. day liggéey moom. waaw day liggéey ndax tey yaawu jaal tey bu demee ba am kër faas gannaaw yàlla dem mooma ndax bu ko neexoon duñ ma wutal licence dañuy ne yaawu jaal. licence kay da jënd rek. comédien la bu doon CNG bu doon Alioune Sarr ñu ne yaawu jaal comédien la kenn du ko wutal licence. ah gis gars yi di sànni xeer Alioune Sarr. nee ñoom bu ñuy ñoom bu ñuy takk ngemb yi sax ñoo sànni xeer. te bu ñu dem ba bàyyi tekki jaaj yi gën waar gi tekki jaaj yi nga xam ne ñii ay un an moo des wala six mois wala trois mois ñu bëgg a xajamal pourtant nag war nañoo sant Alioune Sarr ba gërëm ko gërëm estafu CNG ndaxte gi erreur mënta ñàkk si doomu aadama yaa am karama gis bu dara amee nañ toog waxtaan gis nga wàllum arbitre yi ñuy wax nii ay dañ leen def la dañ leen def la dañ leen def la ah loolu yëpp rek si négocier la Macky Sall président bu juumee sax dañuy woote ensemble waxtaan kon boog bu juum amee ñun ñëpp ñu war a toog rek mën a confirmer mais bu ay nit ñëw bëgg wax waxu seytaan yi wala bëgg waxu naa fekk waxuma nag tur kenn nag man su wàllum CNG laa wax ak jàmm ak salaam tey làmb ji bu demee ba àgg fii gannaaw yàlla Alioune Sarr la Alioune Sarr duñ ko war a sant duñ ko war a gërëm xam nga ne duñ ko war a sant duñ ko war a gërëm Alioune Sarr métier la yor tey boo jëlee kii nga xam ne amul benn métier d'office kon su boobaa xanaa kay mooy saa su ne dañuy lekk mbëri. waaw mais Alioune Sarr 26 ans la fi def de. Oh, kooku booy. su bonoon du fi am deux ans su bonoon du fi am ñaari at ba fi am weer ba fi am vingt six ans Abdou Diouf la mu bàyyi ko fi Abdoulaye Wade la mu bàyyi ko fi Macky Sall mënu nekk jeune ni ñun mu mu di ko refoulé ministre des sports Matar Ba <laughs> maa ngi ko remercié bu baax moom tam ñooñu bu ñu ay ngaaka du fi bàyyi Alioune Sarr dañ ko fiy dàq mais duñu ay ngaaka xam nañu Alioune Sarr nit korot ko nit ko korote la. xam nga xam nga gars yi xam nga kan la yi bañ ku normal wala bu ñu xamee yow woo dara du ñu lijjanti waaye bu ñu xamee am na foo teg sànq investir mais mais dama boo defee lu baax amee noonu da ngay dëkk nit sax nga jiitu fa xol yu yu si lu la gars yi koo faa <laughs> pourtant am na si xol yu mu nekk de yaa ngi am na yoo xam ne yuy siisu ndax yuy ko war a jox cëram. monument la et eh, la kooku même bu nekkoon si état bi sax état bi war na chaque weer bu dee bu nekk rek mu yëkkati salaire na ko Youssou Ndour am nee ma ndax lan. ndax lan xool RFM ñaata at mu jël ay nit teg la fa ñuy liggéey weer bu dee mu leen fay ñu ne waaye mu ubbi TFM ñaata nit ñoo nekk TFM dafa liggéey waaye mais am na loo xam ne si iñaan baaxul ak soxor waaw mais rek am na ñu fi nekk. waaw nañ def moom lu mu def. waaw wax ji. man de loolu laa wax man de wax dëgg si yàlla. nit ki boo bu amee avancement dañ koy ñaanal yàlla mu am avancement mais nit ki bu mu nekk si avancement nga di ko fàkkatal mais loolu pour lan la mais rek xel amul lu mu njëriñoo xalaat calculer bu baax a baax fu mu la waxee. Youssou Ndour dafa bon nañ fexe mel ni moom Youssou Ndour dafa baax nañ fexe góorgóorlu def ni moom boo baaxee rek ñu wax si yow lu baax boo bonee ñu wax si yow lu bon kon am na loo xam ne ni mënta ñàkk si doomu aadama. investir dafa baax si doomu aadama am na ñu nekk fi am na ñu fi nekk ibu ñu sax kantin mburu kon yow daal gisoo ne Alioune Sarr war nañ ko fay jëlee yow. mais Alioune Sarr ko fi dafay a toog. rek nee naa Alioune Sarr tey lamb ji bu demee ba àgg gannaaw yaa Alioune Sarr la lamb boo musaan mbabar yi sax laal ne boo fa demee da nga fay génne da nga fay gis ay jaas ak ay paaka ay jaas ak ay paaka. Ah. mais stade Demba Diop bala wala arène nationale bi bala balaa nga fa dugg dañu lay palpé. kon bëri koy saan xel ñoo nekkul ci yoon. ñoo nekkul ci yoon. ndax am na loo xam ne bu ñu ko bëggee. nañ ko teg si yoon. yaa am naka is non rek dama bëgg nga déglu mu baax. waaw dama bëgg nga déglu ma. Alioune Sarr gàcce ngaa làmb. làmb dama ne boo demee si làmb banlieue yi ay buñ tey buñ ni kii dafa war a daanu. booy génne fa ay jaas ak ay paaka. est-ce loolu am na arène nationale est-ce loolu am na Demba Diop est-ce que loolu am na Iba Mar xel xalaatu ko. Hmm. ndax loolu boo ko fa jéemee ñu teg la ay daan. Alioune Sarr daan yi muy daan gaay day yar gaañ. tant que jalgati woo amul yow amul ak yow problème man maa ngi ajoon na ma fi juróom benn weer six mois ani sa man nangu damaa yaru te su fekkoon ajoon woon kon mën naa jalgati kon am na loo xam ne xel ko bu motali. mbër yow mbër dañu mel ni yow ja. ko mbër yëpp sànni xeer xeer. Gris Bordeaux na ko xeer. waaw Modou Lô sànni na ko xeer. waaw. ñeneen ak ñeneen. waaw ñoom booy kere. waaw ndeysaan ñooñu bu ñu ko sànnee xeer loolu ñoom la concerné mais niñ calculé yaawu jaa bañ ko kenn ñaan lu ma fi woon contravention maa defoon erreur ñu aj ma ban erreur laa defoon combat wu Papa Sow tonnerre tonnerre jeexu ma fa daan jeex ñu avertissement ma ma aju maam ba ma kafee biteel Mbaye Diouf ba mhm. keroog stade boo noonu toj ñu aj ma fa juróom benn weer dëggoom benn mbër bu ma kaasal kon boog am na loo xam xel amul mu ma njëriñ lu xalaat ñoom du ñu fay ko cent millions deux cent millions yaaw ja di fay ko cent mille francs deux cent mille te yaaw jaar bu nekk si ay jafe-jafe ñu nekk yaaw jaar nañ ko defal lii dañ ko defal ñoom bu ñu nekk si ay jafe-jafe ñu bëgg ñu waxal loolu mën ta nekk <laughs> mbër yu ndaw yi kay dañu jàppee seen ñu woon yaa mbër yu mag itam dañu jàppee seen bopp comme mbër yu ndaw yi mais ñoom bu ñu xool seen interpersonnellement loolu baaxul nañ maase lépp doon benn tey bu ñuy wax affaire ndimbal ak yeneen ak yeneen dañoo war a woo mbëru A mais A woo say morom ñu ñëw mais ñoom lu ñuy jël xam nga boo waxee paie. catégorie quoi. voilà déficit déficit bu ñëwee nañu woowaale mbër yu ndaw ya ndaxte bu dul mbër yu ndaw yi bu arbi nii pour xorom du am dëgg nga fexe de ndaxte dañuy ne xam nga tey soirée bu dee am. yus ñu day bàyyi yenn woykat yi ndaw yi ñuy woyantu kaw kur si kaw seen beeg yooyu bu ñëwee rek coow lu jeex def ko première partie waaw léegi nag ñoom nga xam ne ñoom ñuy bëri grand combat yaa ngi dégg ah? te première partie bu amul woon ah kon ñoom est-ce que nit ñoom duñ kon man lu may ñaan yàlla di ñaan ko suñu borom ñaan ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam damay ñaan yàlla làmb ji daal yàlla na réussir du kenn ku dul Alioune Sarr Alioune Sarr ak estafam baax na man dañ wax dëgg Sarr ñaanu ma ko yàlla de waaye de bis bu Alioune Sarr jógee man damay bokk si CNG bi ah. maa la loolu. lu mbëri mag yi bëggee ni ko bëgg na nekk CNG. barke Seydina Muhammad dama ne mbëri mag yi est ko bëgg. dama ne buñ ko bëggee ma bëgg ko en tout cas de Alioune Sarr moom man jëlewu ko fi. te lamb ji de a te bu ñëwee moom la gaynde bëgg. rek ségrégation waru am si làmb ji am na ñoo xam dañuy màtt ëf am na ñoo xam dañuy màtt ëf bari na fa ñi yàq lamb dafa bari du Aliou Sarr kese ñi yàq lamb dafa bari ma du mu tudd tur Aliou Sarr daal nañ ko fi bax nañ ko fi bax xam nga ba moo lan du moom rek moo fi nekk ñu bëri nekk mais waxtaan dafa am amul la amul la ah. mais tey Aliou Sarr tey du dem ba defar lamb ji tey nit ñi tey bu ñu ñëwee tey mbëri tey bu ñëwee ba commencé nekk nit wala ñu dem ba commencé correcté gannaaw yàlla Aliou Sarr la ay jamono fii la ajoon tey seen waaw coono jeexul mais loolu am lu ko waraloon xam la ma waral lool hmm. ah lamb fu mu toll keroog lamb jooju man maa ko sauvé rek hmm. lamb jooju man maa ko sauvé keroog ba keroog gars yi toj ñu stade amitié keroog man maa sauvé stade bi ba keroog gars yi toj ñu stade amitié ndaxte keroog maa fa xam ne ni trente minutes manqué trois minutes ñëpp kontaan xam la mais bu du woon yaawu jaal vitrine yeeg lépp la ñuy toj hmm. kon boog maa ngi ñaan yàlla waa Sénégal yëpp yàlla ñu am jàmm am salaam man nag sànnuma kenn xeer sama gis-gis laa wax ndaxte boo nee da ngay defar làmb yaaw jaay bi di fay ko cent mille franc deux cent mille hmm. ñoom yaaw jaal nañ leen yokk li ndax ñu ñoom tam ñu mën a seen bopp ëllëg ñu mën a jënd seen i kër ah. ziare war ñu yor seen oto bokk nga ah. boo ma wooyee ma ñëw boo ma woo ma jàpp sama ñaambur yaa de en tout cas loo woote lu ne ah boo ma woo dama jàpp sama ñaambur waa bis bu ñuy interviewé mu wax si sama soxla wax si sama xalaat dégg la xam nga lee nekkul da ngay fay ko cent millions rek ñu woo ñu boole la si mais mbër bi di fay ko cent mille francs war a woo tey bu ñu ñëwee ba war a def dara dañ si war a boole mbër yu ndaw yi ñu xam ne ñii kat vraiment woo seen raq-raqaat yi mais def benn délégation quatre per cinq personnes rek génn seen i bagages dem ñu rafet na nice na mais nañu si boole nañu si boole dañuy boole si loolu am na am na loo xam ne dafa war a neex dafa war a rafet yaa ngi ne carrément ah, kon boog tey ñun dañ see boole xorom dafa baax si cin tey boo boo organisé dara wóor classe yaawu jaal yi yaawu jaal xu wóor sa quelque morom mbëri ñëw ay ñoom buddi ñoom yemb ñoom tabaay télé ñoom bul xaddi ñoom commissaire yaa ngi ne ay ñoom jadi jadi ñoom ak ñeneen ak ñeneen mbër yi mag yi fay deux cent millions rek cent millions rek ñu woo fa quatre personnes cinq personnes daal daal di jiital loolu dafa naay suuf nag ñun si làmb ñun bëri lañ bokk ni ñu rafetal affaire lu ñu lu ñu wooyee nañ nañu rafetal soo bi comme ñu koy waxatee comme wax jo gars yi di wax noonu nañ koy rafetal man a yaawu jaar kenn <laughs> ñu defee palmarès si làmb si grand combat yi noonu laa defee sama palmarès ok